njàkkere jaayum kër wala terrain ci mim réew jeex fi wala location Moham xam appartement wala studio ak social shopping immobilier dañu lay jaayal sa produit ci na mu gëna gaawé tubar fakal mettre en rapport ak suñu ay clientèle ñi nga xamante ne dañoo soxla kër wala ñu soxla terrain wala bëgg louer appartement wala studio bu ko défé ñu ñëw sa biir kër dal di lay fotol sa kër wala sa terrain wala sa appartement wala sa studio si ay photo yu euh, leer nañ ak ay vidéo yu doy war dal di koy posté sur suñu page bi de social shopping immobilier vous de faits yen 77 417 77 40 le 33 835 08 67 Action social shopping immobilier Diaker, kër photo photo la photo sen label de shooting bi di social shopping shooting mo len di gungé ci ñaari yeuf waaw ñaari yeuf nee ma benn seeni ay cérémonie mo xam baptême anniversaire mariage dañ leen di defaral ay photo yu and ak qualité yu doy war yamul fofu dañ leen di defar ay vidéo yu am tias and ak catu tias bu ko defee nga dégg dal ci mën ci def ndax xam na ngeen bëgg té ñun ñi wa social shopping shooting dañ leen di defaral li gën hee waa lii neexul romb na neex benen bi gëna neex nag mooy yow mi nga xamante ni top modèle nga nga war a wone sa ay produit dañu lay defaral ay fond en nature yu doy waar fond vert fond rouge lépp la nga xamante ne day taaral sa ay photo pour sa produit gën a mën a jar boo ñu woowee ñu defaral la ay photo yu am solo daal di doy waar yamul foofu la ca gën a neex mooy yow mi nga xamante ne dangaa bëgg sañse daal di bëggal sa ay soppe boo ñu boo ñu woowee ñu ñëw ba sa biir kër defaral la shooting yu amul fenn wala nga ñëw fii suñu studio ak suñu ay fond yu am solo ñu defaral la ay shooting waaye yow lii tam neex na de li gën a neex tubaab fakal la boo ma woowee ma wax la ko ci 77 417 77 40 wala 33 835 08 67 ak social shopping shooting waaye dama ne ay photo day leer ànd ak qualité ay waay ay waay jële waali ay waali lii ñaaw na de ay waay jële kan mu la solol ku solol ay waay jële ku la solol ku soo de su ma xamee naa ko pelent yére yi su ma ko xamee dinaa ko pelent faramaan yëpp faramaareen yëpp danoo jooy ba ki dëkk sama koñ sa fans la de waaye daa jooy ba sonn démb daa ko yërëm sax depuis yëngal ba léegi maa koy bi ba kenn xamuloo sent xol lii xol ay waay ay waay jële waale ay waali lii ñaaw na de ay waay jële kan mu la solol ku solol ay waay jële ku la solol ku solol ay ku la solol ki de su ma xamee naa ko pelent ki yére yi su ma ko xamee dinaa ko pelent yëpp faramaareen yëpp rus danoo jooyoo jooyoo jooyoo ki dëkk sama koñ sa fans la de waaye daa jooy ba sonn démb daa ko sax depuis bi Sidy yëngal ba léegi maa yëngal bi ba léegi kenn xamuloo sent xol lii xol ay waay ay waay jële waale ay waali lii ñaaw na de ay waay jële kan mu la solol ku la solol ay waay jële ku la solol ku la ay ku la de su ma xamee naa ko pelent ki yére yi su ma ko xamee dinaa ko pelent yëpp faramaareen yëpp rus danoo jooyoo jooyoo jooyoo ki dëkk sama koñ sa fans la de waaye daa jooy ba sonn démb daa ko sax depuis bi Sidy Diop yëngal ba léegi maa yëngal bi ba léegi kenn xamuloo sent xol lii xol